Serigne Ndiaye numéro 2 xoolal lii xoolal lii eh way eh ma fàttali la nag ñoom ñaar mas nañoo bëre arène. waaw ah. Franc daan ko. Ah. waaw. kañ na tuuti waaye Franc bi muy mujj a daanu ci mbapat ñaaxar. waaw Serigne Ndiaye moo ko daan. waaye. Ah, bàyyil ci loolu xel daaw kon lii làmb la lii làmb la combat la boo xoolee. Serigne Ndiaye doomi parcelle tey. muy aada booy bawol muy xale bi mu wër ndomb buddi waaw parcelle la jóge tey muy bëreeg demi final doomu parcelle. Mm. kon du yomb. yàgg maar. Ndeysaan cey làmb Serigne Ndiaye Moussa Diop ak Émile François Gomis daw na wër ko da ko bañ na loolu sol bi tër ñi dina ko daan wër na ko ndombo da koy daan da koy daan bañ na bañ na Serigne Ndiaye bañ na Serigne Ndiaye bañ na <laughs> eh wër ndombo da koy daan da koy daan trois appuis daan na ko daan ba toog ci koom laa ilaha illallah Franc Ndiago ngi ay waay alléluia man nuyu naa chrétien yëpp man naw naa Franc man yàgg maar loo wax ci naw naa kii de. guerrier la kii fula la am de. dafa fonk li muy def. kii daa fayda de. kii caaxaanul de. déedéet. kii fawul de. ay yàgg kaay ñu dem xooli Franc. yàgg maar ni ñu demi-finale lese yi. Ngor ñaax Kaaw Gourdin ndeysaan eh way demi-finale lese. ngoor ñax kaw Gourdin e eh, way ngoor ñax kaw Gourdin demi-finale léger Kaw Gourdin xale bu mën a bëre Kaw Gourdin dafa mën a bëre dale foor la dëkk mbapat a ngi nii Ngor Ñaax à gauche Kaaw à droite Kaaw Gourdin Ngor Ñaax ñaari demi-finale lese yee ngongu yàgg maar ñaari demi-finale lese yi waaw eh kaw Gourdin Ngor ñaax jël na ko Ngor ñaax kaw kaw kaw day bañ busulu na ko mu bañ la ilaha illallah eh kaw ak Nguur Ngor ak kaw fu ñu jëm busulu waaye yéen kaw Gourdin mi lu ko dal eh kaw kaw dina ko daan <laughs> ay waay yàgg maar oh! waay kaw Gourdin daanagu koom daanagu koom ay waay kaw Gourdin mi mën naa bëri di ay waay Kaw Gourdin mi mën naa bëri di de waaru naa waaye Kaw Gourdin mi lii lay bëri yéen aa ah, Kaw Gourdin bi ñi bokk ak moom tournoi nañu waaj kii day bëre de Tony Tony dinañ la daan Tony dinañ la daan Tony Tony Kaw Gourdin Kaw Gourdin Tony foo jëm hey waay waay lii daanu na waay wala arbitre ngoor daanu nga bilaay ngoor di daanu astaxfirullah sax astaxfirullah sax waaye ngoor boo daanuwut eh tooni daanu nga tooni daanu nga kaaw gurne nga eh ay waay kaaw gurne daan na ko de wala ngoor ñax daa de ngoor daa mën ay waay ngoor ñaax waay des na la daan penalty yàgg maar penalty lamba a doy na waar de penalty la def de Ngor Ñaax de la def daan na ko nag arbitre daan na ko de a Kaw Gourdin daan na ko bu yàgg daan na ko bu yàgg Ngor daanu nga Kaw en final Kaw Gourdin dem na final Kaw Gourdin final léger xale Dalifort bi cey lamb waaw waaw yàgg loolu leer na ndeysaan final léger final léger Kaw Gourdin daw na jël ko Kaw dóor na ko tànk laa ilaha illallah waa Kaw Gourdin mi lu ko dal tey Kaw Gourdin mi lu ko dal tey yàgg maar xale bii daa feebar tey waaye mbër ma waa Vox Arena tëgg moo dem final ay fara mbër la ay fara mbër ma waa Vox Arena booleeg Tyson 2 boo xoolee bi muy daan Serigne Ndiaye ah. moo gën a souplesse moo pour rapidité yàgg maar moo gën a gaaw te loolu daa baax ci bëre du pas kese de des fois da ngeen di jeex bëre su ngeen jeexee bëre ku gën a gaaw ku gën a rapide day daan. laa ilaha illallah final xale bu doy waar tas yaakaar à droite fara à gauche fara tas yaakaar ñu nga ca. Elas Thioune yaa ngi may woo waaye maa ngi ci reportage eh tas yaakaar jël na Franc tas yaakaar jël na Franc Franc daan na ko Franc jël na ko daan na ko tas yaakaar jël na Franc Franc daan na ko Franc jël na ko daan na ko eh eh waay daan ba périllé Franc ngi eh eh waay yàgg maar Franc ngi tas yaakaar jël na Franc Franc daan na ko Franc jël na ko daan na ko ee eh, eh waay daan ba pérye Franc ngi Franc ngi yàgg maar Franc ngi ee eh, yàgg maar Franc ngi ndeysaan ee waay du mën a e waay ndeysaan kaay xanaa sa xol sedd na. waaw xam nga boo amee bés sa géwélu juddu ñëw di la way sa xol day sedd góor gi Njaay sama géwélu judd la kon tey bu jógee làmb ji ñëw fii tey di ma way di ma tagg damay sama yaram day daw ma koy ñaanal rek moom nit ku baax la. Euh, te tey bésu lamb lamb lii la foo ak ree la ak ñu woy la nga teral sa nga teral say nawle loolu mooy lamb sañse ba jekk dimbali nit ñi te yàlla tax mooy gërëm sama xarit combe caam ñoom Mbayang ñoom Diène Diouf gërëm Manga 2 di ko félicité parce que tey vraiment def na lu rëy organisé na lamb joo xam ne tey mosuñu gis président CNG de lutte lutte sans frappe di nekk si solu di organiser di def léw nag kon tey Manga 2 ñu ngi koy di ko encouragé waaw jox yor na li mu war a yor def na sa li mu war def jërëjëf. booy xale nga booy bul jooy bul jooy xale bul jooy. bal jooy bal jooy jërëjëf jërëjëf wax. remercier ñi nga àndal booy. waaw ma maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñëpp ñu ma àndal di gërëm sama korsu moo korsu di gërëm waa xam sa cosaan yëpp di gërëm sama seex Batista numéro 2 waaw chaque jour ñooy ànd maa ngi moom ba bëccëg sama ndijaay yi gi gaa yëpp waa ginnaaw raay bi yëpp maa ngi gërëm ñëpp Modou Gueye sama korsu guddi gi moo may entraîné géej guddi gi bu ma jugee écurie ba maa ngi sant ñëpp maa sant sama yaay nag di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm waaw. looy wax du jànje wax du si moom rek. waaw moom moom sunu papa ju baax la tayit amateur la bëgg na làmb dañ koy seetaan moom daf ñuy kaasal chaque jour waaw ñun nag ay xale lañ si làmb waaw. làmb nii la affaire yi man ba muy ba muy ba mu métti. dañ ma doon ñu lañ ma dëpp xam nga la liggéeyal góorgóorlu xale Fara encouragé na ko lii moo rafet yàgg maar boo xanteel de waaw faw nga boo xanteel. donc. Euh, yàgg maar da boo xanteel. waaw waaw donc. Euh, merci beaucoup merci. président du Diagne mu lay jox. en tant que vainqueur mu lay jox un million trois cent mille. waaw mu nii. trois cent pour Fara. xaalis dañ koy wàññi. non garaawul non garaawul garaawul garaawul. Euh, sama nga doo def loolu doo ma bon. ok booy kaay léegi looy wax. ah waxal nag. waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp rek Babacar. Franc da ngaa dem final tey amul problème. yàlla moo la def nga ñàkk tey ay sportif ngeen lii mooy éducation. kon gars yi leer na nañ gis ngeen image yi ak Equivox du ay caaxaan bu leen ko jaawale jarta jaxase Equivox TV la ak kan baaba Babacar ànd ak Elas ak Yagmar ak Khoule ñëwoon tey fii ci arène nationale Fallou Ndiaye woote woon fi tombeek samedi le 27 mars 2021 tegoon fi 4 millions francs jël ko lese bi xaleb Cambérène bi jël ko mu mel ni kon daal moom Kaw Gourdin bu Dalifort moo jël lese bi tamit ci la nga xam ne ni moom lañ fi tegoon kon dañ leen di jox daje rek ci yeneen journée waaye bu leen fàtte suba sëñ Modou Niang fii lay ñëw ak lambi door te rendez-vous yi bëri na la 4 avril defe naa jarta jaawal ndax ab dat la Eumeu seen Lac de Guiers 2 yàgg maar fee la ñuy bëree te gis nga fii ni mu bëree suuf géew bi ni mu yaatoo gis nga boo amul condition physique bu doy billaay gisuma la mbaaw kon ñoom ñaar moom lu la waaye mën a wax mooy fii du ay gason suuf la dangay dugal say tànk di dugg yàgg na leer nañ Eumeu Sène yàgg Lac de Guiers yéen laay waxal pour le 27 waaye Fallou El Capo borom yëre yu baax yi kenn du moom waaye na leer xool kookuy teg musique waaye fii nag kër bu Modou Lama Petersen moo fi génn yàgg du mën a ñàkk yàlla na ñëpp am jàmm yàgg beneen yoon.